ñu ngi nii tolloog dugg ci tolloog teeru bi juróom bu teeru bi nga gis nga ba léegi rek jëm kër leader bi Ousmane Sonko fa lañ jëm nii dèjà mbooloo mi nañu jaar ñu ngi jaar nag presse bi oto presse lañ mu ngi noonu ndeysaan Malick bu Dakar Buzz ndeysaan ñoom ñëpp rek euh, Sénégal moo ñoom ndeysaan